seen bokki Touba Mbacke ak li ko wër seen jaaxle jeex ak boutique salam boutique salaam di yëngu ci fajum ada ak cosaan indi leen ay garab yu baax lool ci seen yaram ginnaaw saytu gi set gi ak sell gi ñoom waa boutique salaam ñoo ngi nekkee ci Touba tali bu bees fi arrêt taximaan yi boutique salaam seeni garab moo ngi bàyyeekoo ci réew yu fasantikoo fu ci mel ni Bissau Mali Nigeria ñu saytu ko ba mu làmboo ak i njariñ te ñépp mën koo jariñoo ñoom waa boutique salaam daañu faj góor gu tële di faj hémorroïde bu na nëbbu wala bu feeñ siñ muy faral di naaj ci tanku yu metti hepatite A hepatite B hepatite C ñoom waa boutique salaam daañu fajj asma di fajj yaaf di fajj estomac ba ci ulcère nga amé fièvre sang wala gémmiñ guy faral di xéñ ba ci kuy sawlal ñoom wa boutique salam fagul nañ leen garab yu bax lool citation bu yek wala buy wacc bir buy metti ndoxum siti yeen bokk jigen ñi faral di jambat fièvre perte balance ba ci fibrom tanku yu metti wala nga amé fièvre sëqat jokkol ak wa boutique salam ñom wa boutique salam daani faj na tubaab ko artus indil nañ leen ay garab yu bax lol ci nopp yi metti wala biir buy metti wala ndiguluy metti ba ci bëñ buy metti ñom wa boutique salam ñoo ngi nekké fi ci Touba tali bes, fi arrêt taxi mani jëm ci xawga bo fa ñëwé da nga ñu fa fekk wala nga wo leen ci numéro yi 77 686 13 68 77 686 13 68 wala 76 926 08 27 76 926 08 08 27 ak boutique salaam ñoo leen di ñaanal salaamatan wa aafiya aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim isaa jaa nasrullahi wal fathu wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajan fa sabbih bihamdi rabbika wastaxfiruhu innahu kaana tawaaban asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki yi teewlu ak a seetaan seen seen bu mag bii di Yes Dakar waaye ñi nga xam ne si ñu ngi bàyyi xel ci site bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara seen émission ëttu xam-xam ngeen ci ànd ak sëñ Mor Talla Tawféex ëttu xam-xam di émission boo xam ne si dañ ciy waxtaane mbooleem xam-xam bu jëm ci wàllu asraar mbooleem xam-xam bu jëm ci wàllu tur yàlla mbooleem xam-xam bu wàllu jëm ci bu jëm ci wàllu feebar yi daal doomu aadama yi yàlla suñu borom subhaanahu wa taala wax ci alquran ne walillahi al asmaul fad'u biha man yàlla am naa ay tur yu kawe yu màgg fad'u biha woole ma ci ku ma ci ma wuyu la 99 tur yàlla yi ni ñaan yàlla yépp alxuraan karim indi na ko allahu rahmaanu rahiimu maliku xuddoosu salaamu moominu muhayminu hasiisu ba ca sa boru muy 99 tur yàlla tur yàlla bu nekk dafa am lu muy jariñ ci côté mystique am na tur yàlla yoo xam ne si bayre moo ko tax a jóg yoo xam ne si ubbeekaay moo ko tax a am tur yàlla yoo xam ne si kaaraanga moo ko tax a jóg am tur yàlla yoo xam ne si wàllu wërsëg moo ko tax a waaye tur yàlla bu nekk it am na lim tur yàlla bu nekk yit lim bi mu jàpp am na garab gu mu war a àndal ci plante yi ci garab yi ndax bu ñu fàtte ne yàlla nee na allahu nuru samawati wal ardi masalu nuurihi kamiskaawatin fiha misbaahu al misbaax Euh, fi sujaayati sujaayati ka annaha kawkabun duriyun yuxadu min sajaratin mubarakatin zeytunatin man yàlla maa barkeel garab yi rawatina garabu zeytun kon yàlla bu tuddee garabu zeytun dafay tudda tuddaale garab yëpp yàlla benn mbir lay tudd rek mu yóbbaale yëpp tuddee zeytun tudd na garabu mango garabu carotte garabu limon garabu supame garabu ñambi garab yooyu yëpp dafay daal dugg ci biir garabu daqaar yàlla benn garab lay tudd rek mu yóbbaale garab yëpp su ko defee buñ tàmbaloon tey ci misaal joxe ci tur yàlla yooyu benn buñ delloo ci suratul waqiat bismillahi rahmaani rahim ida waqaatil waqiatu laysa li waqaatiha kaasibatun xaafidatun rafiatun ida rujatil ardu rajjan day dem ba ci biir mu ne laa yasmauna fiha laqwan wala tasiman illa xiilan salaaman salaaman wa ashaabul yamini ma ashaabul yamini yaminu boobu tur yàlla la boo ko chiffré boo calculé moo lay jox 110 yàlla ak miim ak yaa ak nuun

tur yàlla bi ab lim boole ko xobi màngo sangoo ko ak ak lakkoloñ bu muy àndal ngay sooga a weddu tur yàlla yi pour mën a ubbeeku ndax lépp secret la waaye dañ doon joxe misaal rek képp koo xam ne kii it yàlla dafa dogal da bëgg a dox ci tur yàlla boo ñu ooyee ci numéro yi dañu la mën a jàngal tur yàlla képp koo xam ne kii da bëgg jàng xaatim xaatim mu salas xaatim mu rabaa xaatim mu xamas mooy xaatim mu ñetti buntu ñeenti buntu juróomi buntu ba ci alfu bu wéet bi nga xam ne si maanaam junniy buntu la yëpp dañ koy jàngale lépp lu jëm ci wàllu garab it palant garab gu nekk la muy faj reen ba xas ma la muy jariñ ak xobu garab ba la muy jariñ dañ koy jàngale soo ko defee kon képp koo xam ne kii bëgg ngaa jokkoo ak ñun suñu mortal tawféex man nga oote ci numéro boobu di jàll ci kanam écran bi muy 78 592 64 54 78 592 64 54 78 592 64 54 kuñ ci jot ñu inshallah waye dana leral tout yi ci février tawat tay dama non damay jël ñaari février waxtan ci Ben février, bi moy février beut benen février bi moy février wala maanaam tawati bët yi am na bu tudd trachome moom microbe bu tudd chlamydia moo koy joxe docteur yi xam nañ ko waaye nag feebaru bët dafay wàlle na ko ñëpp xam ku amee feebaru bët nekk ak ay nit man nga leen ko wàll bu fekkee sa waajuru jigéen da ko am man nga am man na la ko wàll sa waajuru góor bu ko amee man na la ko wàll bu fekkee da nga am maam ju ko am man na la ko wàll moom feebaru bët am na ci feebaru bët boo xam ne si ñu ngi koy wooyee bët xam ne bët dafa am lu ci ñuul am ci weex li ci ñuul day mel ne lu giri du ñuul kukku li ci weex mel ne lu am ay taas yu xonq wala taas yu ñuul kooku it feebar bët la am na feebar bët boo xam ne si da gis ni per bu bi nekk ci bët bi dafay am beneen mbuus bu lalawaat ci kawam mooy tax bët yi di lëndëm am ci feebar boo xam ne ki mu nekk ci yow gis ni per bët bi li ci ñuul dafay am leneen lu ron lu weex luy tegu ci kawam am na ci feebar bët boo xam ne si mu nekk ci yow suba gi di nga mën a gis waaye bu xasee ba tàmbalee timis tàmbalee guddi sa gis-gis dafay wàññeeku am na ci feebaru bët boo xam ne si it maanaam ñu ngi koy wooyee cataracte am na ci feebaru bët boo xam ne si ñu ngi koy wooyee glaucome glaucome mooy bët bu am tension su booboo de su boobaa dañuy faj tension bi faj bët bi am na ci feebaru bët boo xam ne si ki mu nekk ci yow gis ni boo xoolee sa kanam di mën a gis waaye boo xoolee sa wetu ndeyjoor doo mën a gis boo xoolee sa wetu càmmoñ doo mën a gis kooku it feebaru bët la am na ci feebar bët boo xam ne si maanaam da gis ni bët dafay xasan di metti ngay toxoñ muy génne ndox kooku it feebar bët la waaye bu mu ci mën a doon dañ koy traité am nañ ci garab gu koy saafara ci juróom-ñaari fan ci lañ koy traité mu deñ ku mu nekk ci yow lu mu yàgg-yàgg ci yow juróom-ñaari fan ñu saafara ko mu la deñ képp koo xam ne ki nag bëgg nga mu saafara ci yow mën nga oote ci numéro yooyu di jàll ci kanamu écran bi muy 78 592 64 54 78 592 64 54 78 592 64 54 wala nga ci 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ma ak feebaru émorite émorite Olaf di ko wooyee jàngoro Kajoor dafa am bi nekk ci biiru nit ki am ko xam bi ci biti lay am lépp danaa ko leeral li tubaab di wax interne ak externe hémorroïde bi nekk ci biiru nit ki lan mooy indi hémorroïde d'abord ci lañuy ñuy njëkkee luy indi hémorroïde hémorroïde feebaru togg dana ko indi ñi nga xam ne si dañuy liggéey liggéey toog toog maanaam seen liggéey dafa am toog toog toogaay bi yàgg ñu mel ni safoor yi yi dawal taximaan yi wala ñuy dawal super wala njaga njaay wala karapit toogaay bi yàgg boobu dafay indi hémorroïde waaye amna am yu koy indi lu mel ni lekk yu bëri pat ñi nga xam si dañuy jëfandikoo mburu mu bëri supa maanaam maanaam ni ma ko mën a waxee mburu mu bëri ak euh, ñi nga xam ne si dañuy jëfandikoo toujours fataay bëri beñe bëri vermicelle bëri spaghetti bëri lekk yu bëri pat yooyu boo ko dee lekk te doo di seerewu dafay waral seere tàmbaliment bi da ngay gis ne da ngay seere boo lekkee du gaaw a rees man nga toog ñaari fan ñett doomaa dem wanag léeg-léeg dangay géex te géex gi ngay géex dafay ànd ak maanaam xet yow mi amee hémorroïde bi nekk ci biir te géex googu mën na dem ba indil la li ñuy wax xetu gémmiñ kooku mooy hémorroïde bi nekk ci biir bi nekk ci biir nag doomu aadama bi fi muy demee toilette fi muy demee wanag mooy def benn benn picc wala benn taab boo xam ne si day waral nit ki du mën a toog du mën a taxaw day jaxase xelu doomu aadama bi day waral nit ki énergie am wàññeeku day waral nit ki néew doole day waral nit ki maanaam dootu man dara kooku mooy hémorroïde bi génn bi nit ki su muy demee toilette foofu lay nekk léeg-léeg man ngay toog sa tubéy du tooy ngay génnee lu mel ne dëtt wala lu mel ne deret kooku mooy hémorroïde di jàngoree Kajoor moom it dañ koy traité ci douze jours fukki fan ak ñaar ci dañ koy traité kim dal boo ñëwee daañu ko mën a saafara ci fukki fan ñaar ndax yàlla moo wax ni maa farat naa fil kitaab min shay'in téere biir alxuraan karim kat bàyyiwul dara lépp mu ngi ci biir alxuraan karim waaye lépp ay secret la te secret yooyu yëpp xam nañ ko jàng nañ ko ba mën ko soo ko defee kon tey loolu lañ indi woon tey ci émission bii di ëttu xam-xam chaque semaine daañu def ñaari émission wala benn waxtaan ci feebar yi waxtaan ci tur yàlla tey loolu lañ indi woon seen émission ëttu xam ci ànd ak sëñ Mor Talla Tawfekh fi sen sen mag bi di Yes Dakar waye tamit wu ñi bàyyi xel ci site bi ñëpp ñu ngi leen di ziaré su ko defee kon mbooleem ko xam ki kii it maanaam bëgg ngaa am lo am nga lu ne ci yow ci walu jangoro nga bëgg ñu safara ko wala ci walu ñaan bo ci numéro yoy di jall ci écran bi dana mëna nekk ci kàttanu yalla ak muy 78 592 64 54 118 592 64 54 118 592 64 54 wala nga woote ci 76 369 27 27 76 369 27 27 waaye ñi nga xam ne si dañoo bëgg ñaan lu ci wàllu këyit nekk bitim réew dañ ciy def ay ñaan koo xam ne kii da nga bëgg am bayre dañ ciy def ay ñaan koo xam ne kii dangaa bëgg am kaaraange dañ ciy def ay ñaan koo xam ne kii da ngaa bëgg sa bunti wërsëg ubbeeku dañ ciy def ay ñaan koo xam ne kii cat dafa ne ci yow ñaari xeetu cat moo am catu bët ak catu làmmiñ ñi nga xam ne si seen làmmiñ dafa aay ba maanaam lu ñu wax mu yàqu am ñoo xam ne si seen bët mu aay ba lu ñu xool mu yàqu ñaari yëpp am na dañ koy simpit ak ne dañ koy saafara buñ delloo ci xasida ak sindiir yi nga xam ne si sëñ Tuubaa moo ko bind يا الله بالمصطفى سندير يا الله وبخليل لك ابراهيم يا الله دنا بتبير موم سنتوبا مونان وكن معيسا لنا من سر سي حسد ما سر فم من وسر العين يا الله لولا سنتوبا واخ وكن معيسا لنا من سر سي حسد ما سر فم من وسر العين يا الله يلا نام موم سرتي لامين بو اي اك بو اي دان نو سر سحر وسر الخلق انسهم ومح جنهم وسواتسم يا الله ايو نيت ayu setané ayu nuku weex ak ayu nuku ñul loolu señ tuba ñaan kon ciat baaxut ma ngi neen bu rayul semal moy bu la rayul rek indi la problème yo xamni ci si mo koy gën kon képp ko xamni ki yi ma wax nek na ci yow bo oté ci numéro yoy di jall ci kanamu écran bi dañ ko mëna safara bam deñ ci carte yàlla ak mbaaxam su ko defee kon képp ko xamni ki rek manam am nga lo ci bëgg a dolli ci émission bi wala nga am lo bëgg laaj question bo ci bëgg laaj man nga woote ci numéro yoy ci kanam di jall ci kanamu écran bi

ngeen bokki Touba Mbacke ak liko wër seen jaxla jeexna ak boutique salam boutique salam di yëngu ci fajum ada ak cosaan indi leen ay garab yu bax lool ci seen yaram ginnaw saytu gi set gi ak sel gi ñom wa boutique salam ñoo ngi nekké fi ci Touba tali bu bes fi arrêt man yi boutique salam seen garab mo ngi ko ci réew yu fasantikoo fu ci melni ni Guinée Bissau Mali Nigeria ñu saytu ko bamu lambo ak ñariñ te ñepp man ko jariño ñom wa boutique salam dañu fajj góor gu di fajj hémorroïde bu na bu wala bu feñ ci muy faral di ci tank yu metti hepatite A hepatite B hepatite C ñoom waa boutique salaam daañu fajj asthma di fajj yaf di fajj estomac ba ci ulcère nga amé fièvre saan wala gémmiñ guy faral di xéñ ba ci kuy sawlal ñoom wa boutique salam fagul nañ leen garab yu bax lool citation bu yek wala buy wacc bir buy metti ndoxum city yeen bokk jigen ñi faral di jambar fièvre perte balance ba ci fibrom tank yu metti wala nga amé fièvre sëqat jokkool ak boutique salam ñom wa boutique salam daani Fatna naa tubaab ko artus indil nañ leen ay garab yu bax lol ci nopp yi metti wala biir buy metti wala ndigul yu metti ba ci bëñ buy metti ñom wa boutique salam ñoo ngi nekké fi ci Touba tali bes fi arrêt taximaan yi jëm ci xawga bo fa ñëwé da nga ñu fa fekk wala nga wo leen ci numéro yi 77 686 13 68 77 686 13 68 wala 76 926 08 27 76 926 08 08 27 ak boutique salaam ñoo leen di ñaanal salaamatan wa aafiya